asalaamaaleykum wa rahmatulah dellu nañu waat di leen di nuyu di ziar ñëpp di waat ñëpp ak ci weeru koor gi ñu nekk xam ngeen ne ba tey ñu ngi def le tour demoon nañ si Ada dem nañ ci adversaire am Thiaroye Coly Faye ah, dem nañ seeti yeneen mbër tey ñu ngi fii ci biir rëbës rëbës moom dañ ñëw fekk fi koo xamante ni moom tamit suñu suñu frère la comme yeneen mbër yëpp ni ñu nekkee ay frère ah, parce que ñoo bokk làmb ji ñoo bokk métier bi double moteur lañ ñëw doomu rëbës moom la ñu fekk si. Euh, di ko masawu coono diggante bi xat na ak koor gi métti na trop mais daf ko jéngu rek xamul nu ñuy def ah mu dalal ñu ñu fas yéene waxtaan ci euh, kooru mbër euh, maa ngi ànd góor gi moo nekk ci caméra bi jëwriñ Adama moo nekk ci logistique bi moo ñu indi kon balaa sans plus tarder rek ñu jëm ci waxtaan bi mbër dama lay bàyyi nga nuyoog ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ci Sénégal Sénégal ak diaspora bi. waaw gannaaw bañ sant yàlla julli suñu di sant suñu ñaari waajur ñu ngi leen di nuyu nuyu waa àdduna di nuyu waa Sénégal di baal ñëpp ak di baalu ñëpp ak di ñaan jàmm si réew mi ñu caabi féete ginnaaw yàlla génne leen xam nga di ñaan aussi ñu tëdd si hôpital yi yàlla fëgg seen bopp kilifa diine yi yàlla bàyyi fii bu baax a baax a baax yàlla def ci réew mi jàmm daal di leen nuyu di leen siyaar bu baax baax di leen dalal jàmm di baalu ñëpp ak daal di baal ñëpp ak di baalu tamit xam nga sunu mbokk chrétien yi waaw ci fête bi ñu jógee nii xam nga ñoon jox joyeux Pâques ñëpp waaw di bëggee ñëpp daal. ñaan mhm. leen alléluia suñu mbokk chrétien yooyu yàlla dafa dogal Euh, li ñuy wax euh, dialogue bi diggante jullit yi chrétien yi. Mhm. yàlla dogal ñun ñaar ñëpp ñu daje ci weeru koor. waaw ñu njëkk a wori ñoom ñu xaar ñu ñu tam ñu war a wori. waaw fii ak euh, jours. mu nekk affaire bu doy waar tamit ah. waaw mooy mooy àdduna moom ñëpp benn lañ quoi. waaw loolu moom mu nekk lu yéeme aussi tamit xam nga nekk lu garaaw tamit xam nga jullit ak catholique di woorandoo ci benn bis loolu. dafa yéeme daal. yàlla yenn saa yi day wax waaw moo tax yàlla ay mbiram daal waaw moo tax yàlla ay mbiram daal gis nga noonu la demee ñu xamal ni ñëpp benn nañ di ci profité tamit xam nga si nuyu sama mbokku njaago yi xam nga bu baax a baax ak sama mbokku joolaay ndax sama soxna njaago la xam nga nuyu ay mbokkam di nuyu sama goro yi bu baax a baax a baax a baax di kontaan si ñoom bu baax a baax. Mm-hmm. man de mosuma xam ne am nga soxna. ba nga dëgg kay dëgg la dëgg la kay. kañ nga takk yàgg na. non yàggul noonu nag Mm. mois de juin bi passé. juin bi passé waaw. ah Double Moteur la. <laughs> <laughs> Double Moteur nga takk sax na man yëgu ko ko. waaw gis nga affaire yi ak man sa gars noonu la demee noonu affaire yi mooy loolu affaire yi daa bette woon nag quoi. ay takk bette rek kay am. waaw dafa bette buur géwél la ah. takk ñetteel nen bett. Eh. koy door a wax. <laughs> ñetteel kenn ko may. ba mu naan daf ma doy na waar de. ana kuy am ñaari jabar. ñetteel ah day na <laughs> eh, mais fel ñu lay félicité ah. yee eh, na leen jig. amiin allah amiin yàlla ay njaboot yu barke. amiin buur <laughs> ñu may ko soxna. buur waroo def lii de. damaa buur waroo def lii <laughs> ah buur bu la maa ngi jégalu kii si yow rek lay yem <laughs> alors euh, mbër ak koor ci koor gi waaw koor gi metti na yaa ngi woor koor gi ñu ngi woor waaw koor gi moom métti na méttiwul mm. waaw ndax chaque jour da ngay wax nga nekk activité yoo xam ne moo gën a métti koor foofu mm. waaw mais ñu ngi koy gérer daal waaw ñu ngi koy gérer baax doo toog benn mm. bi biir bi di metti quoi yaram bi bañ lépp nagam non mënul ñàkk mënul ñàkk mënul ñàkk mais mooy loolu yàggul quoi. mais kooru mbër mbër nga xam ni na ma yàlla baal. Mhm. toute la journée da kay lekk. <laughs> da kay nelaw tamit dafa am heure nelaw. am mhm. heure lekk bu yeewoo moom xam nga boo demee entraînement fajar. Mhm. ñëw da ngay ndékki tëdd. waaw boo yeewoo da ngay xiif. que entraînement dañuy métti. day métti waaw entraînement wu fajar. day métti waaw saa yoo yeewoo moom da ngay xiif. waaw moo tax gis nga sax tamit noonu la demee moo tax gis nga koor gi day métti. xam nga trois heures yu matin ngay dem géej boo ñëwee xëdd après xam nga heure ndogu boo ndogoo ba pare ngay demaat école waaw moo tax day day bay xaw métti daal mais nag amul différence ah ak budul koor aussi tamit waaw amul différence budul koor ndax. non am na différence yéen matin bi. midi bi ngoon si guddi gi moment yooyu yëpp dafa am ay heure lekk si yéen. waaw loolu dëgg mais xam nga tamit am na loo xamante ni moom weeru koor rek moo ko mën waaw loolu yàlla rek moo ko sañ moo ko mën xam nga waaw buñ si tolloo nag dañuy xam ni nag. bu weesoo ay affaire de làmb ak yooyu tamit ay jullit lañ xam nga kon dañuy def yëfu jullit waa jaamu yàlla daal ndax boo xoolee comme ni ko gars yi di waxee rek ñu ku ci nekk tey jii bu weeru ñëwee doo bàyyi liggéey doo bàyyi koor gi ndax sa liggéey xam nga am te am na liggéey yu gën a métti làmb xoolee ay maçon yi xam nga ay ay ay dokeer ñii di wàccee conteneur yi xam nga yooyu làmb gënu ko métti waaw xam nga te gars yi boo waaw xam nga te dañ koy boole ak yi suñu bokk ambulant yi xam nga yooyu dafa métti de gars yi boole koor gi kon tamit amul ni mu bëri laa nii rek xam nga damay bëri nii rek mooy loolu noonu waaw. il faut gars yi bàyyi loolu xel waaw si ñëpp lay métti quoi. c'est que bi moo tax ñu naan bi parce que entraînement bi épreuve physique nga xam da ngeen koy daj. waaw moo laa la xam entraînement bi tey jii nii tey jii entraînement bi moom boo xoolee douze mois nga entraîné un mois mun la yàqal te un mois bi nekkul da ngay toog bàyyi ko yaa ngi dégg da ngay da ngay maintien xam nga di nga maintien di nga entraîné deux yoo xam te ni. xëy na peut-être maanaam li nga doon fournir bu dul koor doo ko fournir ci koor gi. Hmm. da ngay maintien kon loolu amul dara lu la mën a yàqal parce que doo bëre ci koor. Hmm. après koor ngay mën a bëre. Hmm. mais da ngay maintien bu fekkee yàgg nga entraîné moom loolu dara. loolu amul dara dara dara lu la mën a wàññi wala dara gars yi ñooy wax rek mais mun la wàññi dara. parce que tey loo xiif xiif xiif boo xasee ndogu boo lekk day mel ni mosoo xiif. moom. non ndogu bi sax mooy loolu rek toog soo ba ngoon jot mu war a ndogu waaw loolu moom mooy la mais ñun benn ñun man ah, naa man na koor moom sama reer sama reer mooy diis sa reer mooy diis mais ndogu bi nii damay mos nii rek moo demee école ba ñëw nag reer bi moom hmm. damay lekk ba une heure yi ma dee damay lekk waaw may lekk moom guddi gi moom ah, damay lekk noonu waaw mais bu ndogu moom bu ma ko seen ndogu nii moom hmm. ba dem école moom hmm. damay mos rek waaw waaw boo fa jugee nag boo ñëwee ba sangu nag ba dallu après boo maa yooyu nag moom day mel ni bëccëg bi day doog a tàmbali quoi journée bi si lay doog a tàmbali. day yow moment da ngay door di dem rek. yee non moment boobu waaw moom dañuy lekk naa si <laughs> waaw. boo ndogoo ba pare. non ça dépend lan ngay gën a préféré reer bi lan lay doon ceebu jën. waaw mooy loolu ça dépend rek xam nga. dañ koy soos wala. waaw ça dépend rek lu ci ëpp moom. Hmm. ay ñaari cin lañu ëpp lu ñuy lekk guddi gi. waaw ay yaase ginaar affaire yooyu noonu waaw. ah <laughs> non <laughs> non de ay yooyu non lekk yam diw yooyu duma ko lekk guddi yow ah. lekk yam diw nii eh, guddi gi mooy loolu bu bu bu vingt bu vingt et une nii hmm. lekk boobu diw du ma ko laal fen hmm. xanaa mu xiif dëgg-dëgg hmm. waaw. amuma léegi bu ñu bu ñu jógee ci ci ci ci koor gi lu mu tëddee ak euh, niñ koy wooreeg métti beeg. mbokk mhm. yëpp. Euh, da nga jógee ci ci benn combat. Mhm. combat boo xamante ni. waaw euh, ñëpp jàpp nañ ne yow sax. waaw gis nañ ne combat bu la naqari la. waaw yow ak Quench. parce que bëri nga ba combat bi jeex si avertissement la la la la la mais ñu ngi ne jour boobu noonu. Mhm. duwul moteur dara xam doxul moteur bi dafa kule ko moteur bi dara dara dara dara doxul. dara fonctionné wul waaw noonu la jàpp mystique. <laughs> wala bëgg naa nga expliquer mu loolu ko waaw noonu la demee xam nga làmb jooju moom. ñëpp ñu ngi woon stade te ñëpp gis nañ li fa am préparé nañ ko nag waaj nañ ko bu baax a baax eh, parce que tamit ñun ñu bëre noonu xam nga ko bëri ay douze combats xam nga am ci dix victoire benn défaite kon kooku am na yoo xam nii soo ñëwee rek dinañ xam ni nga daan ñëwee ak noo ñëwee dinañ xam ni benn. waaw non man yooyu beneen côté bi damay laaj ba xam da nga daje koo xam ni ku la jommal. non gis nga xam nga tey par exemple benn affaire dafa am. kon sama adversaire la mbër la ndaanaan la champion la moom suma ma daanee war na daan su ma ko daanee war naa ko daan ay naataango lañ làmb la yoo xamante ni maanaam ku nekk mën ngaa daan sa morom ku nekk mën ngaa bëri daan sa morom comprendre kon am na loo xam ne bu ci amee rek dañuy wax li nga xamante ni moo ci am mais sans cadre loolu sans cadre dara làmb ji li ci li ñu ci sonal la rek mooy yàggaay chaque jour parce que lamb ji waaw lamb ji parce que xam lu war loolu parce que lamb ji dafa yàgg lamb joo xam dem na presque ay deux ans dafa metti da ngay dem ba da nga mm. mm. ngay dem ba day bëri xam nga waaw semaine combat bi amoon naa tamit blessure mm. da nga blessé woon. waaw amoon naa ci mais blessure boobu contact laa ko gaañoo du blessure bu ma tëree nag. il faut gars di bàyyi xel loolu du blessure bu ma tëree hmm. waaw parce que bu doon non parce que bu doon blessure bu ma tëree kon. du ma du du demee noonu mu demee quoi waaw xam la voilà xam nga tey am na loo xam ne bu la demee ci préparation rek hmm. psychologiquement ak leneen leneen dina am lu mu wàññi ci yow hmm. comprendre nga waaw yooyu yëpp dafa metti ko waaw metti loolu la waaw yooyu yëpp nga xam nga bëre waale ko làmb ji yàgg a libéré wu rek combat bi xam nga na a tëb. waaw loolu xam nga la mooy bi. Hmm. mooy li ma la wax làmb ji na dem na ba def ñaari te tey boo xoolee ñun dafa am benn philosophe boo moom la ñuy doxee si làmb hmm. mooy ñun moment yi ñu toll dañuy dundal làmb mais dundeeguñu làmb parce que làmb fayeguñu dara comprendre hmm. parce que tey am na ay ñu ñu jàppale. Mm-hmm, mm-hmm. mais tey jàppale yëpp da nga koy jël def ko ci billets yi pour supporter dem parce que boo gisee keroog stade bi ni mel macha allah mm-hmm. nga war a xam ne tamit jënd nañ ay billets yu bëree bëri. xam nga mënoon nañ nag def ñu may ñu cinq cent mille ñu ko def ko suñu bopp wala denc ko mais yooyu defuñu ko ñu ko jënd koy may ñuy fay ak yeneen kii ñu jël ko di ko demee si social suñuy propre moyen loolu moo waral mu demee noonu mais jàppale dañ koy di ko def suñu bopp kon du ñoom problème si dara bu lamb ji diroon trois ans tamit garaawul mais tamit da ngay sóor ñu topp sa ginnaaw na ay jeunes ay boo yoo xamante ne ñii. tey ñëw ñun li ñuy bàyyi si bund bi sax moo ëpp liy dugg si biir te lépp ay problème mu la rek. comprendre nga waaw yooyu moo tax nag léegi yooyu nag mooy tax yooyu mooy tax nag mm. fi mu ne lu ñëw rek dañuy bëgg teel a libérer supporter supporter bi dafa metti dafa sonn. si borom dafa sonn ci mbër. mais mais combat bi digéré nga ko actuellement. Hmm? non naaj si saa naaj. non ko de. bilaay digéré moom fàtte nañ ko ñu ngi si leneen. tàgg ci bu baax bu baax a baax ñu mooy loolu. Hmm. mais loolu dafa war a leer loolu làmb la yoo xamante ne xam nga dafa war a leer quoi ku nekk dem. parce dafa toll foofu noonu quoi. waaw il faut kenn daan sa morom. parce que xam tàqalikoo nañ man ak moom yaa ngi dégg kon amul dara lum ñu apporté ñu ñaan ñëpp boo xoolee xam nga tey mais moom na ko parce que moo la gagné waaw mooy li ma la xam nga ñu koy félicité ci loolu nombre d'avertissement waaw ñu koy félicité ci loolu ñu koy xam ci règlement la ba ñu koy félicité ci loolu mais xam nga sport individuel surtout làmb ici au Sénégal dafa am nu mu baaxam gars yi ñu si bëgg mooy bët gàng mm-hmm. xam nga li ma la mu leer mm-hmm. comprendre toog sa kaw rek. waaw noonu la demee ko amul leer xam nga li ma la gars yooyu lañ xam. kon instant yii nii ay ay yooyu avertissement yooyu yooyu yooyu bi mu ñëwee ci làmb la yàggul. kon ko tëggoon nii nii pour leeral ko yow da ngay jël. non pare nañ déggoo li ma la xanaa. Papa Gasson man maa la ko ñaan parce ñoom xam nañ ñoom xam nañ xam nañ li mu fa demee woon. te mooy loolu ñoom xam nañ Papa Gasson maa la ko ñaan. nii nii leeralal combat bi nii diggante Quench ak Double Moteur. Mm. bu fekkee Quench bëgg na. waaw bu bëgg na. waaw bu bëgg na nañ ko leeral parce que combat boobu noonu dëggantaan jaaya ah, gars yi dafa mel ni man ñu ci combat boobu. non moom bu moom bu buggul tamit ñun dañuy dem xooli leneen parce que tamit. waaw parce que tamit ñun ñun ñun ñun ba tey ñoo bokk position bu ñu nekk. Mm-hmm. adversaire yi ñu koy proposé moom la ñuy proposé xam nga. kon amul différence te tey boo xoolee ñun li ñuy woo di ñu proposé ay combat sax. fekk si moom boo xoolee ba mu jógee suñu combat ak léegi da nga dégg doo ko dégg sax ci combinaison yi. ah mën na am nag de. mën na am ay combat te doo non am na xam nañ ñu gars yi lay nekk toog rek. gars yi mais baax na dina yàgg si ruq boobu de. Hmm. noonu la mooy loolu de. <laughs> alors euh, kon combat boobu noonu gars yi bëgg nañ ko muy Gaston muy keneen ak keneen ñoom hmm. Fallou. ah ñoom ñëpp. Hmm. ah ku ko bëgg tëgg rek incha allahu rabbi Sam ñëwal tëgg combat boobu. noonu ah ah wala boog yeneen promoteurs yi incha allahu rabbi mhm. alors daan nga fi fëgg la mhm. daan naaru sogaas mu am ah. beneen combat boo xam ni tamit dam boobu dama ko seetaanaat quoi mhm. ma ni maa ah, lu xew lii doole la wala ñàkk mën a bëre ah. wala naagu la ñëw daan ko muy sa combat ak Mame Balla waaw sama combat ak Mame noonu noonu la mënoon demee aussi tamit parce que combat boobu combat la boo xam ne boobu xam nga rek fougue de jeunesse mm. te préparé nañ ko niñ ko waroon préparé def nañ ci yëpp ñu waroon def xam nga gars yi topp la nga ànd ak fukk bi noonu demee nag boo xoolee làmb ji mhm. foofu boo làmb ji boo xoolee li fam ñëpp ñu ñoo ko def xam nga lu mu la mhm. parce que boo xoolee ci biir bërëb bi dóor nañ ko ba mu kaaw mhm. xam nga ñu koy song après si lañu si la jàll wër ñu ndomb comprendre si su doole laa ñëwee mu wër ñu ndomb après par décision arbitre la parce que foofu parce que foofu ku régulier la mu dóor ci ginnaaw mais wër ndomb bi xam nga hmm. nee nga dóor nga ko mu kaw benn mu ñëw wër la ndomb waaw wër ndomb boobu noonu expérience la bëri waaw expérience la bëri ak man waaw manqué na waaw mais loolu si moo la doon yóbbu non c'est normal expérience manqué wul sax ku xam na ni hmm. junni baax na mais ñaari junnee ko gën nit mën nga am expérience am tombé daje ku la expérience mais loolu waaw mais xam nga loolu jotewul ak dara nga ñàkk expérience hmm. mais Mamba la ku ko xam-xam ne technicien la te ndaanaan la te tamit xam nga moom moment boobu noon tey jii nii ñu doon bëre mu daanoon ñu ci làmb tamit am lu dara lu ñu yàqal suñu làmb dañuy continuer suñu yoon parce que ñoo nekkoon ay ndaw ñoo ko fekk si làmb ji comprendre te boobu ba léegi gis nga lu yàlla def waaw xam nga waaw te boobu ba léegi gis nga am nañ ci am na lu ñu jàng lu bëree bëri mm-hmm. ñu jóg léegi yàlla tam mu ñuy suturaal xam nga mm-hmm. ba léegi instant yi nii mooy loolu xam nga mm-hmm. te moom gis nga boobu ba léegi mënul am combat ñoo na fi mënul am combat ba ni mu delluwaatee kon nga war a xam ne maanaam làmb moom chaque jour rek sa tey moo lay jàngal si suba daal waaw am na lu bëree bëri lu ñu defal moo tax man la sa tey moo lay jàngal si suba ñu koy préféré dam di xam nga di ko félicité xam nga di ko nuyoo passage parce que jandal grand la xam nga te laam moom noonu la rek hmm. waaw grand yi moom wax dëgg yàlla moom ñoom ñoo mën a may booy sance ñu génne dem suñu yoon tax lamb yooyu ñun mën naa ne bokk na si lamb yi nga xamante ni moo ñu génnee ñun sama combat ak Mambal waaw parce que lamb la lamb loolu yoo xam ni si su dafa am lu mu joué suñu carrière donte nag ñàkk nañ ko mais am na lu bëree bëri lu mu joué suñu carrière mm, mm. parce que si si jógee nag bi ñu si jógee ay mbër yu mag ñooñu taalal loxo yaa ngi dégg parce si jógee dem jëli naaru sokaas mbër mu mag la mu taalal ñu loxo mm. ñu jóge fa jëli fukk xam nga ñu nekk ay mbër yu mag ñu jóge fa dem jëli coins comprendre kon am na ci loo bu ñu dugal boo xam ne tey fi mu ni lamb ji sunu morom kenn mu nu si bañ comprendre nga kon yooyu dañ ciy sant yàlla moo tax yàlla des fois buy defar day mel ni lu yàq waaw moo tax yooyu noonu yooyu dañ ciy sant yàlla daal mm. parce que làmb ak loolu ñoo ànd alors mais léegi mm-hmm. euh, Double Moteur fan na nekk mu ngi ci combat mm-hmm. nekkul ci combat mi ngi waxaale léegi naa am na kenn benn mbër sax boo xam ne ñu ngi mm-hmm. ak moom ba combat bi dafa mujjee yàqu mën nga ma ci indi tuuti explication waaw Double Moteur moom mooy li ma rek xam nga yi moom chaque jour promoteur yi ñu ñuy woo di ñu wax ay xam nga chaque jour ñu ngi ñuy woo di ñu wax ay combat ñu ngi ñuy proposer ay adversaire am na si yoo xamante ni nag xam nga yooyu gars yi dañ ci sori nañ ci tamit aussi mm. moo tax chaque jour tamit ñun ñu ngi am yaakaar rek mm. ñu ngi yaakaar toog di xaar mm. waaw. mais benn bi yaakaar moo yàqu. waaw non xam nga ñun moom mooy li ma la wax sànq rek ñun làmb du yàqoo si ñun am na nag promoteur bu nekkoon suñu combat di ko dox promoteur bi xam na li may wax mbër bi xam na li may wax bañ doxoon ko presque ba mu sot ba avant si war a génn mm. mais après par la si ñoom la yàquwaatee ci ay problème de yokkal ma xaalis ak genre affaire yooyu daal xam nga mm, mm. waaw mais nga tax gars yi daal nañuy bàyyi xel loolu noonu nañuy bàyyi yooyu noonu xam nga ñun ñoo war a bëri suñu biir ñoo mën a mayante xaalis suñu biir man xam naa ko mm-hmm. leen rek li ngay laaj noonu noonu mooy loolu quoi <laughs> en champion yow suma gaayan nga moom suma gaayan la làmb ji yéen ay mayante xaalis nga toog benn année bëre loolu dalay delloo ginnaaw ci làmb mhm. gars yi dañ la fiy bàyyi looloo xew ci làmb ji ak làmb ji ñu toll noonu la demee de ñun nekkuluñ fi ah. kenn ñun nekkuñu fi pour benn mbër nekkuñu fi pour kenn ñun ñu ngi fi pour champion yëpp mm. ku ñu làmb booleel ñu dégg suñu saf ñu ngi xool déggoo li ma suba moo ci mujj rek ay promoteur ñu may woo di ñu wax yeneen adversaire combat jam waaw yu baax yoo xamante waaw yoo xam moo gën yi nga xamante ni sax moo la ñu doon wax moo na ñun amuñu xam nga yooyu day am des fois di des fois nit mbër mm. da nga am plan A am plan yaa ngi dégg boo mënul am A mënoo am B nga dem jëli C. waaw te moom adversaire boobu plan C la woon rek. déet lu mënoon ñàkk la. adversaire boobu ah, da nga bilaay plan C la rek parce boo xoolee ñaari camps yi ñu jógee sax bokkul. Mhm. man ci Quench laa jógee. tey su ma bëre woon sama combat Quench tey jii bu ci ndam amoon tey jii damay dem bëre ñoom Sa Thiès ak ñoom Reug Reug xam nga ma la wala mhm. man ñooñu laa waroon bëre li comprendre nga mhm. mais ni mu demee nii sa moo tax. tey su fekkonte ni dama cee daanu wala bit gàng aussi tamit am na yenn boo yoo xam te ni tamit du ma leen xam ne samay morom lañ mais làmb ñëpp gis nañ ni mu fa demee mais kon tey jii nii amul dara loo xamante ni tamit daf ñu koy wàññi si dara. mais kon instant yi nii ñi ñuy waxaale moo gën a tàng boobu quoi. non foofu. Hmm. yee waaw nga ne benn dina ci nañ si yaakaar bu baax a baax. ndax am na si dina ci saison bi. waaw ndax moo tax ma la wax sànq benn wax ba mu solo mooy tey. Hmm. dafa am loo xamante ni gi nga mbëri xam na nañ seen mbir baax nga mbëri magi tey ji nii bu ñu demee ba war a wàcc pour jël yenn espoir yi. dañuy xool espoir yi nga xamante ni mën nañ am si ñoom dara. tey lu ci mel ni tey espoir yi bu ñu leen jëlee dinañ si am kase bu baax. te tey ñun ku ñu xam-xam ni mooy li ma la sànq dañuy dundal tey ñun dañuy promoteur daf ñuy fay ñu jël suñu xaalis bi ñu fay jëndee ay billets. xam nga waaw te tey loolu mooy waral tey te mbër bu ñu ñun mbër bu xamante ni jël nañ tey ñun ñun rek mën nañ laa yóbbaale ci lépp. Mm. yaa ngi dégg mm. mën nañ laa yóbbaale ci public yóbbaale ci kase yóbbaale ci lépp non noonu la deme xam na loolu sax xam na ne combat bi liñ ko ci fay ji xaalis su ko fayeku te du ko fayeku du ko gaaw a ah, fayeku fayeku mu bàyyi combat bi mu delloo avant mooy li mu la wax rek xam nga gaa xool baaxul non xam naa loolu la xam naa ciment day xool baaxul wala muy bëgg ko ko yokkal <laughs> xam naa léegi nag euh, si foofu lañ yemoon ci wàllu làmb ji am na ñuy waxaale ak yow léegi nag euh, si cappaandaw gi lañ nekk mais li ma lay laaj rek hmm. mooy que ne euh, du Moteur jàng na alxuraan def na daara waaw ñun nag moom jàng nañ mais xam bi ñu bàyyi jàng non xam nga ñun bi ñu waaw xam nga ñun ñu bàyyi jàng léegi nag dafa xaw a yàgg hmm. eh, bi ñu bàyyi jàng léegi xaw yàgg moo tax xam nga hmm. am na yenn si bëri yoo xam ne <laughs> waaw loolu moom jot na waaw dëgg yàlla non loolu mooy yoon xam naa loolu moom sax dama ko fàtte woon ah. <laughs> kon yow li la dala ma dal nag sax dama ko fàtte woon noonu la demee nag affaire des fois xam rek boo si gëjee ni moom da ngay xaw a plané quoi mais teewul xam nga jàng du wees quoi comme ni ko gars yi di waxee mm, waaw te loolu aussi tamit am na solo ñu si baaxel mm. te dinañ gën a tamit farlu ci côté boobu daal. Mm, ci diine lu am solo la. Euh, tey boo doon ñaan. ci weeru koor bi lan ngay ñaan loo xamante ni mi ngi sa biir xol bi bu weesoo waxuñu nag sa carrière. bul wax waxu carrière carrière bi moom. roi des arènes nga bëgg a nekk ñëpp xam nañ nga nekk nga di champion te yàlla na la ko yàlla def mm. incha allah rabbi ji mm. ci barke weer koor gi mais lan ngay ñaan loo xam ne mu ngi sa biir xol bi ci weer koor gi man li may ñaan li gën a nekk sama biir xol mooy mm. lu mooy mën a def ba dimbali sama yaay parce que xam naa ne sonn na quoi sonn na su ñun bi ñuy booy ba léegi ndax man maay caatam comprendre te boobu ba léegi xam nga loo xam jugul su ñun benn yoon kon tey man chaque jour maanaam loolu kese mooy nekk ñaan boo xamante ni moom laa xam ni waaw mu ngi dund moom wax dëgg yàlla mu ngi rëbës waaw mooy ñaan yàlla aussi tamit xam nga mu guddal fanam ba mu fekkee njëriñ li ak mboolem yaay parce que tam ñoom sonn nañ si ñun daal te xam nga jot na tamit ñun ñu noppal leen hmm. te ba nii xam nga des fois da koy tiim affaire yi yu si bëree bëri rek léegul da ngay xam ni xam nga xam nga mag rek dafa métti hmm. après dangay toog di xalaat xamoo ndox dina fekkee wala du fekkee xam nga hmm. chaque jour moo tax yooyu noonu mooy waral mën a tax may tiit quoi des mm. fois. li mm-hmm. nga ko bëgg a defal ba xam dina ko fekkee. voilà xam nga moo tax des fois da ngay xaw a tiit. Mm. sa nga xam ne saa yi mag la. Mm. parce que ku caatam tool nii. da ne saa yi mooy loolu. mais nag waaw te bëgg nañ xam nga balaa ko fee yàlla jëlee aussi tamit. mu fekkee suñu ñu fekkee loo xam ne xam nga. xam na ne lii ay doom ñoo ko jaayante daal. waaw loolu daal mooy li nga xamante ni bokk na li gën a bëgg sama àdduna yàlla yàlla mën na ko yàlla ko yàlla barke alxuraanu na ko yàlla def ci barke alxuraanul karim amin ñu defal ko suñuy waajur amin amin ah, ñi nga xam ni seen ñaari waajur yëpp ngi dund ñu defal leen ko ñoo xam ne benn lañ dese ñu defal leen ko ah, ah, waxtaan bi kontaan nañu ñëw nañu ci li nga xam ne moom mooy koor geek mm-hmm. ci carrière bi yenn combat yi nga xam ni marqué na la mm-hmm. ak combat yi nga xamante nii gën na la yóbbu waat ci kaw. gën na mhm. defaraat sa carrière. ak fi ñu jeexale mooy. Mhm. ci diine gi. da nga wut oustaz mu lay jàngal. non loolu kay déggoo li ma la moo jógee fii kay si loolu laay taw <laughs> incha allah mère yàlla na ko yàlla may gudd fan. yaay booy guddal fan nag guddal fan ñu teral la incha allah amiin kontaan nañu trop. waaw parce que moom wax dëgg yàlla mm. jàmbaar la. Mm. jàmbaar la xam nga. Mm. yar nañu wañ tool ni judoo fii màggee fii amay góor. amay yoroy doomi góor xam nga te ji gis kenn ku nekk si naka sudul noonu wala ay xam nga mm-hmm. te ñu juddoo foo xam ne dafa xaw a doy waar xam nga. Mm. mooy loolu noonu. Mm. mais yàlla suturaal ñu ba nga xamante ne tamit. Mm. teg ay conditions yoo xamante ni tamit. di daraay caaxaan tamit wala daraay ñàkk fayda doon si gis. comprendre nga kon loolu maanaam liggéeyam la moom. waaw kon ñun li li ñu war ak moom rek mooy tey ñu jaayante luñ ko noppalee daal. waaw xam nga noonu la voilà xam nga noonu noonu la demee nag xam nga. <laughs> waaw moo tax di ko profité tamit xam nga parce ñun. man boog. Mm. man moment bi sama papa di gaañu 2007 boobu booy laa dara waaw parce que mënul ma sama bopp dara. Mm, mm. waaw te tamit dafa may loolu des fois dafa may bokk ci li ma gën a métti. bu avance ñëwee nii tamit xam nga mu leer man sama papa waroon na fekk ba lekk sama ñàkk. te du cent franc sama papa mos a. lekk si man. dëgg la ba ni mu génne àdduna parce que moment yi muy génne àdduna boobu mënul ma sama bopp dara dara xam nga waaw noonu la demee quoi. yooyu noonu tamit des fois bokk na si li ma gën a métti. bu ma amee combat nag. Mm, ñaar yëpp ngay jox waaw parce que bu ma amee combat la sama xel di gën a dem ci loolu. Mm, su ma amee combat bu ñu doon défense nii teg ko loxo maire bi a barke loo xam ne dañoo sama ñàkk la. waaw parce tamit loolu noonu la ñuy ñaan yàlla ku ci nekk. Mm. xam nga li la. mais nag sant yàlla te tamit. am nañu yaay yoo xamante dëgg yàlla waaw am nañu yaay yoo xamante ne wax dëgg yàlla mën na papa mën na yaay waaw barke alxuraan bëggul ñu manqué dara. sant yàlla bu baax waaw alors ma bàyyi la nga tàggatoo ak gars yi. waaw tàggatoo bi di profité rek di gërëm Baye Ndiaye bu baax Baye Ndiaye borom alburaax. waaw waaw moom sama xarit la nit ku baax la. Mm, xam nga moom combat bi bi mu tagee sax bi ma lay expliqué sànq. Mm. moom woo promoteur bi xam nga xam moom mooy waxaale sama combat yi. Ah, waaw moom. moo woo promoteur bi bi ñu amee benn différence bi moo woo promoteur bi ne ko avance yi xam nga ba pare inscrire ñu olympique ci gii prix ay cinq cent quelques mille nga fay ko ay coach ay boxeur yooyu xam nga ak musculation bi ñu yor la xam nga si benn fracture de seconde boo xamante ni wax nga promoteur bi déggoo ngeen jàpp na ni combat bi taxaw mu woo coach yi ma dem ci saa foofu laa dem këram laa jóge dem ñu def filiation yeeg yëpp moo waaye xaalis yi xam ngay xam nga yooyu noonu tamit xam nga. yombul daal waaw yombul quoi waaw mu am lu bëri loo xamante ne aussi tamit dañ ko daf ñu ko jàppale suñu carrière mm-hmm. ñu koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla aussi xam nga mm-hmm. ak groupe alburax bi yëpp mm-hmm. ak magam Aziz Ndiaye xam nga ak Kor Ndiak waaw di leen ñaanal bu baax a baax a baax lép loo xamante ni mën nañ ko doon daal déwén yàlla nañ mën lu ko ci barke Seydina Mohamed xam nga di sant tamit ku ci mel ni suñu papa Diop si xam nga moom mention spéciale si ñun dañ koy sant bu baax ku ci mel ne waaw Diop si mooy monsieur le maire de Tivaouane waaw nouveau maire Tivaouane <laughs> ñu koy sant damaa dem sa kër daaw waaw kii bi ñëw nga nekk nga nekk maire barka alxuraan nit ku baax <laughs> eh, nit ku baax eh. waaw ñu koy ñaanal gudd fan rek moom mm. ak wér gu yaram dañ koy ñaanal mm. moom xam na lépp waaw di suñu papa di suñu xarit di suñu lépp mm. xam nga di sant tamit Baba toure suñu président Saliou Diop Pascal Bassène Douanier Popol Douanier xam nga Elimane Gueye taalibu Serigne Saliou maam Góor Samb Mortala Gueye xam nga di sant Abdou God bool bool yëpp di sant tamit Bokar Diela bu baax borom fast food bi xam ni dañoo yàgg ba tey bu mu jàppee ba léegi baawul ñu koy sant bu baax di ko gërëm xam nga di sant sama waa koñ waa Rose Dakar Plateau bi ñaay cokkeer bi kam manuel ba gël tapé Cheikh Ba ñu ngi koy sant bu baax merci borom maintenant président Ousmane Ndiaye maa ngi koy sant bu baax Ndëmbalaan maa ngi koy sant bu baax maa ngi koy sant bu baax waaw parce que ñooñu dañ ciy jàpp daal ñooñu dañ ciy jàpp di ci sonn yee noonu la demee nag billaahi surtout jeunes yi booy yi mafia bu ndaw bi xam nga mm-hmm. booy yi nga ko baabamee waaw waa défoncé bi ñoom mm-hmm. Ousmane ku ci mel ni Ndiaye Ndeela mm-hmm. kooku aw ma fayam dama koy sant dama koy bàyyi yàlla ku ci mel ni Modou Diagne Diop dollar ñooñu yàlla même seen fay mu fayal ma leen parce que ñu ma lay wax nii ay jeunes lañ yoruñu ay ah, seen ko ci mm. mel ni Modou Diagne mm. Ndiaye Ndeela mm. Diop dollar ñooñu ak Abdoul Ahad Bopp borom ko mm. kooku mention spéciale laat. Mm. parce que bi ma nekkee sama combat bi ma koy wàcc maa Quench. Mm. mën naa ni deux mois la ma yor regroupement deux mois. waaw laa la ma la ma la ma loose kër kër boobu déglu ma gale boo xamante ni am na piscine kër gi li muy rëy rëy man kese maa fa nekk ak ñi ma àndaloon mbër. ay champion yu mag laa la ñoo fa nekkoon. gàlle bo am piscine am lépp. fa la ñuy nekk entraînement léegi te entraînement moo ñuy bu jugaa si kër gi lekk tëdd añ reer ndekki du ñu manqué dara te lu ñu bëgg lañ doon commandé jëlal ñu ay togg ko rek lépp pare lay million la finance combat bi borom somoon laxat boobu maa koy ñaanal yàlla tamit xam nga di ko nuyu ak soxnaam si bu baax a baax a baax a baax ak ndey faatu xam nga mm. waaw maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu soxnaam yi di nuyu njabootam yëpp di ko ñaanal jàmm ak tawféex waaw parce que ñooñu dañ ciy jàpp dañ ciy sonn quoi waaw lu ne gaañi mais xam nga dañ ciy jàpp waaw ku ci mel ne Awa Abdoul Ba tamit Awa Abdoul Ba sama ministre jàpp na si parce que Abdou Khadir Gueye moo ñu boole ak mu jàpp si combat boobu métti woon na trop gisuñu woon kenn mu dugal ci loxom kon ñooñu dañ leen di sant gërëm waaw di leen ñaanal tawfeex yàlla na leen borom bi fay amiin amiin amiin incha allah bu leen na leen lim moom mën nañ fi toog fii ba gannaaw noonu la demee nag moo yaatu waaw gars yi dañ siy jàpp bu baax bilaahi mag ñeeg ñëpp war na reçu laa jàppale barke yàlla ngeen bëgg ci moom fii mm-hmm. ci tund rëbës mm-hmm. yàlla na ko am ngeen bokk ko yéen ñëpp yéen ñëpp teewe ko ñu jaajëfal euh, tamit euh, mm-hmm. góor gi euh, moom moo jàpp tamit ci combat bi moo ko aadama jaa ngeen jëf mbokk yi jaa ngeen jëf rendez-vous prochainement ak beneen champion kooru mbër jaa ngeen jëf yàlla na ñëpp am jam